salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di dalalaat ci seen podcast yeewu di leen gërëm di leen sant ci li ngeen ñuy déglu donc tey partie 2 bi dañuy commencer un peu déblayer lépp lu jëm ci concept bitcoin blockchain et cetera donc li ñu gisoon ci partie 1 bi mooy que bitcoin ñetti affaire la benn système de peer to peer distribué mën nga ko comparer un peu à torrent système de peer to peer boobu noonu am nga benn protocole ñoom mooy gérer consensus bi moom mooy gérer fonctionnement wu réseau bi fonctionnement wu nœud yi condition de validité de transaction yi ak de bloc yi et enfin nga am cryptomonnaie bi donc nit yu bëri cryptomonnaie bi rek la ñu xam parce que moom la ñuy trader moom la ñuy utiliser pour fay pour jënd ak jaay. alors instant bi dañuy njëkk a xool nan la transaction yi di fonctionner. encore une fois explication bi ma nar a joxe nii c'est vraiment une explication superficielle vraiment simpliste parce que en vérité c'est un peu plus complexe que ça mais suñ doon xool de façon simpliste transaction benn adresse moo koy générer donc adresse yi soo leen xoolee c'est une série de chiffres et de lettres euh, bu xaw a bizarre nii <laughs> entre guillemets donc du ko adresse bi da nga ko war a authentifier ak sa clé privée donc fii dama si taxaw waxoon naa leen si biir terme blockchain donc au final si biir bitcoin il y a beaucoup de cryptographie et partie bii nii c'est lié à la cryptographie asymétrique donc nañ am notion de clé publique clé privée su ma bëggee joxe benn exemple mais vraiment terre à terre boo xam ni ku nekk mën nga si gis sa bopp damay joxe exemple yónnee SMS beneen numéro yow pour nga yónnee SMS à partir de sa téléphone yow yaa xam code bi donc il faut nga déverrouiller sa téléphone. nga bind SMS bi nga yónnee ko numéro kenn léegi jàppal ni yow sa numéro mooy fii nii adresse bi sa adresse bitcoin jàppal ni numéro keneen ki moom mooy adresse am mais que yow pour nga yónnee sa SMS bi il faut nga déverrouiller sa téléphone c'est un peu comme si tu signais que si yow yaa am accès sa téléphone donc tu as mis le code donc pour que nit mën a yónnee euh, ay bitcoin wala beneen crypto monnaie si adresse su keneen. mais ici en l'occurrence on parle de bitcoin il faut mu signer adresse am il faut mu signer transaction bi ak clé privée ma préciser que lii lépp c'est déjà codé dans le code source de bitcoin et que ce fait automatiquement du nit ki moom mooy dem signal boppam avec clé privée am et cetera logiciel bi moo ko nar a def léegi transaction boobu noonu après dañ koy dugal su lu ñuy wax bloc donc bloc bi lan la c'est Alice moo yónnee Bob ay bitcoin Mamadou yónnee faatu ay bitcoin Dupont yónnee Demba ay bitcoin léegi oli ñu leen di valider benn par benn même su fekkee au final loolu mooy xew ci nëy mais loolu tamit benn affaire la dañuy boole transaction yooyu yëpp ñu dugal leen ci benn bloc de telle sorte que mineurs yi ñi nga xam ni ñoom ñooy valider euh, transaction yooyu noonu yëpp. dañ leen di valider certes benn par benn mais dañuy valider bloc bi yëpp en même temps après ñoom si leen la ñuy am seeni récompense instant bi récompense boobu noonu c'est six virgule cinq bitcoin enfin boobu noonu pour mu mën a valide il faut mu am hash donc empreinte cryptographique bu bloc précédente bi donc pour nga yow sa transaction mën a dugg ci benn bloc ñu valider bloc boobu il faut que bloc précédent yi ñu valider leen ba pare donc loolu laa doon wax tamit ci épisode une bi que les blocs sont enchaînés entre eux loolu moo tax ñuy wax bloc chain une chaine de blocs mineurs yi nag liggéey boobu yëpp ñuy def de validation des transactions de validation des blocs via vraiment le calcul de benn nonce loolu la ñuy woowee système de proof of work la preuve de travail ñii dañoo wane ni dañoo liggéey liggéey boobu noonu moo tax ñu leen di récompenser ak ay bitcoin mais aussi avec les frais que vont payer les différentes personnes qui envoient et qui reçoivent des bitcoins. au final opération bii ni ma leen expliquer léegi nii ki nga xam ni c'est plus complexe que sama explication bu sommaire bi euh, vise à garantir vraiment plusieurs paramètres. nga xam ne moom mooy def succès wu bitcoin moom moo def succès wu li ñuy woowee troisième révolution industrielle mais vraiment révolution technologique bi am instant bi nii donc paramètres yooyu mooy intégrité confidentialité sécurité décentralisation rapidité et cetera parce que soo jëlee exemple finance classique mi nga xam ni moom la ñëpp di utiliser benn virement international mën na jël entre deux à cinq jours soo bëggoon yónnee xaalis virement bancaire Sénégal mu dem France wala Sénégal mu dem États-Unis il faut compter ay minimum cinq jours ouvrés te loolu il faut nga ibbi compte te ibbi compte xam nañ ñu yombul ci banque yu bari il faut que banque yi ci boppam am benn réseau bu ñu woowee correspondent banking et que il faut nga fay mais vraiment ay frais yu xaw a doy waar yu xaw a jéggi dayoo. Euh, pour yónnee trois cent euh, disons trois cent euros nga bugg ko yónnee France mu ñëw Sénégal via banque benn banque de la place di nga fay peut-être ay quarante entre ki koy yónnee ak ki koy recevoir alors que benn transaction bitcoin ça ne prend que quelques minutes quelques secondes euh, maximum quelques heures et loolu lépp ça dépend yow les frais que tu es prêt à payer. donc su fekkee yàqamti woo mun nga def vraiment frais minimum yi su fekkee dangaa yàqamti nga yokk frais yi mais te jamais mu dépasser réellement frais yi nga xam ne moom la nit yi di fay ci banque classique yi yàgg nañ fi gis ay nit yu yónnee ay millions d'euros di fay ay 7 euros de frais wala ay 7 dollars de frais euh, instant bi ni système d'incitation boobu noonu nag dafa intéressant loolu mooy yaa une certaine démocratie mais aussi yaa euh, y a une certaine liberté donnée à tout un chaque yow nga mën a gérer nan ngay yónnee sa xaalis kañ nga koy yónnee fan nga koy yónnee ak ñaata ngay fay pour ñu yónnee ko mais dans tous les cas li ngay fay du cher. donc pour lii lépp mën a am pour nga mën a am adresse pour nga mën a yónnee wala recevoir ay bitcoin il faut déjà nga am benn portefeuille virtuel portefeuille virtuel nag mën nga ko am de différentes manière Euh, mais ñun bi ñuy bi ñuy conseiller euh, lii dinañ ci def benn épisode mais vraiment complète boo xam ne dinañ expliquer toutes les solutions possibles mooy nga am sa benn nœud lu ñuy woowee un full node boo xam ni euh, c'est mën nga télécharger Bitcoin Core euh, qui te permettra d'intégrer réseau bi nga disposer portefeuille virtuel nga mën a stocker yow mi sa bopp ay say Bitcoin mais loolu tamit beneen épisode la maintenant que wax nañ leen tuuti ci transaction yi nu ñuy doxee même su fekkee dugguñu trop dans des détails pour bañ leen a perdre euh, ñu ngi avancé ci beneen épisode boo xam dinañ gën a dinañ gën a gas gën a xóotal bitcoin.